Mm-hmm. bismillah kon ñu fàttali na ba tey ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy jawharu nafis nga xam ne moom it Cheikh Ahmadou Bamba moo ko way tibbi ko ci laxdar yu boobu moom it muy téere boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu fiq muy jàngale nu ñuy jëfee santaane sun borom yi ñu tolloon nag ci fi mu doon waxee naan digle lu baax ak tere lu bon war na ci ab jullit waaye nag ngir nit ki mën a digle ak a mën a tere dafa laaj ay sart sart yooyu daje ci yow tax nga sañ a digle sañ tere moom la waxoon ci mujjantalu liñ mujjoon a jàng ne lakinnahu lahu thalaathatun shurut dakaraha fi sharaxi cheikhuna al muhit loolu nag mu ne aneytu maa ngi ci jiblu fil jawaasi ca dagan ga wal wujubi ak warga fa haka jàppal ab limam xala tartibi ci toftale ne loolu nag ngi jiblu sart yi nga xam ne bu dajee ci yow ñu ne jaayis la ngir nga sañ a tere mooy anaytu fil jawaasi bu ne wala wujjoo bi ak warga nag mooy sart ya bu dolli ko ba man ñett ba ñett sart yépp daje ci yow dañuy wax ne romb na nekk jaayis waaye waajib lay doon ci yow nga xam ne su boobaa boo digluwu tere woo mën nga ca am bàkkaar hmm, loolu nag lay leeral ne ay li ci jiblu an mu nekk moom mi bëgg a digle moom mi bëgg a digle ka na day laaj mu nekk aaliman di aji xam bil mun lañu fakk mooy lañu sib ba ko tere tam gis na it wala sa mufdiyan li charni ñel day laaj moom mi bëgg digle ka tere mu doon ko xam lañu bañ ci lislaam ba di ko tere xam itam la baax ci lislaam ba di ko digle kon kiy digle ko tere dañuy bëgg mu xam li ñu digle ci lislaam ak li nga xam ne dañ koo tere itam ci lislaam mu xam ko xam gu leer ndax waxuñu loo xam ne rek aadaa ko digle wala muy loo xam ne aada moo ko tere ndax bari na lool nga fekk léeg loo xam ne ndigale aada rek lay doon léeg nga fekk tere yoo xam ne terey aada rekk lay doon waaye waxuñu loolu kon na fekk mu xam bu baax li ñu digle ci lislaam ak li ñuy tere ci lislaam loolu mooy sart bu njëkk bi bi ci topp nag mooy walay sa mufdiyan li charin akbar mooy mu gis itam ne digle gi muy digle lu baax ak tere gi muy tere lu bon du jur mbir mu gën a bon moomu wala mbir mu ko gën a garaaw waaye su fekkee bu jubloo tere nit ki dara tere ga muy tere loolu mën naa jur waneen ay woo xam ne mooy ëpp doole lam doon tere ba tey kon su boobaa du ko jar moo tax ma ne ay sama fu diyante dit muy aji àggale li charin ñi la way ak bërëb bu gën a rëy daane wa añ yàkkoona ak mu nekk xawadiran di aji am kàttan zul amri di borom ndigal mooy ko amee baat koo xam ne bu waxee ñu def ne wax gi mu wax ne nekk boroom kàttan nag mooy mu am kàttan alal izalati ci dindi bi xayri nukkuri ci lu dul weddi hmm. loolu mooy sartu ñetteel bi nga xam ne bu ci dolli ko sa digle ak tere nekk waajib ñaari sart yi ma njëkk wax nag muy nga nekk aaliman bil munkar boo mu wax muy xam li ñu digle ci lislaam ak li ñu tere ci lislaam ba noppi walay su mufdiyan li sharin akbar nga gis ne digle ga ngay digle baa tere ga ngay tere du jur musiba mu ko gën a rëy ñaari sart yooyu ku mu daje ci yow sañ ngaa digle sañ tere am nga sañ-sañ ci digle lu baax ak a tere lu ndax xam nga lañuy digle ak lañuy tere te gis nga ne it du jur musiba mu gën a rëy sart bi mu mujj wax nag bu ci doole ko muy ñetti sart su boobaa diglee ko tere dafay nekk waajib ci yow mooy wa an yakuna qadiran zul amri al izalati bi xayri nukri mooy mu doon koo xam ne am na kàttanug ak baatub bu nee def li ñu def bu ne bàyyi leen ñu bàyyi dafa am ñoo xam ne dañoo am doole mën a dindi mbir mhm. am na ñoo xam ne yàlla jox na leen baat jox leen kilifteef goo xam ne déggal nañ leen déggalu suñ ne bàyyi leen danañu bàyyi suñ nee def leen danañu def koo xam ne nag ñaari sàrtu njëkk yépp daje na ci yow nga xam ne xam nga la ñuy digle ak la ñuy tere ci lislaam walbatiku it gis ne tere ga nga koy dër du jur musiba mu ko gën a rëy su ca dollikoo nag nga doon boroom baat boroom ndigal loo xam ne boo waxee def leen ñu def boo ne bàyyi leen ñu bàyyi loolu bu ci dollikoo ñetti sart yi day mat ci yow te su boobaa nga digle lu baax ak nga tere lu bon lu ci nekk waajib lay doon ci yow soo ko deful rek danga ci am daani sa borom hmm. mooy wa an yakuna qadiran zul amri ala al izalati bi xayri nukri teewul nag mu ne wa charatoo sart nañ ci it isna imaamin ndigalul imaam fii ci digleeka tere maal adaalati ànd koog maano bilaa tamwihi ci lu dul lëntal danañ wax nag ne ngir nga tàmbali di digleeka tere sart nañ ci nga am isnu imaam mooy ndigalul imaam ci boppam muy jox la ndigal ci loolu waaye loolu nag xanaa kon la aju ca mbedd ma lay doon waaye nit ki ak biir këram moom du ci ndig ndigalul imaam yaa nga jege ci mbokk nga war leen jubbanti war leen digal lu baax te leen lu bari loolu doo ci négandi ko imaam xaj na nag bu loo xam ne danga koy siq ak waa penc mi ak mbedd mi loolu mooy laaj nga am ci ndigalul imaam boole na ci it maanaam xadaala ji ànd ku maano bilaa tam wii ci dudul lantal loolu dafa mel ne ñaari sart yoo xam ne dañ ko doole ci sart yi waxoon mu mel ne day wax ne kon dañuy sart ngir nga mën a diglee ko tere nga am ci ndigalul imaam ñaareel bi it nga doon commando waaye nag bind wi ci kanam dàq na ñaar yooyu wane na ñaar yooyu du ay sart ci digle ak tere daf daf ni waqiila waxeef na mooy waqiila am nañu wax ne inna zeyni ndaka ñaar yi lam yakkoona nekkuñu chart ni di ñaari sart fil amri ci digle ak tere nee na ñaar yooyu ma mujj waxkat muy nga am ci ndigalul imaam ak nga doon commando du wérut ci ne sart la ci digle digleega tere doonu ci ab sart dani na nga bàyyi at taxam yi na wéye njort mooy bul dox rek njort kon ba yowoo rek jàkk jàpp lam njëkk a wax te xam ne kon am néegul imaam ak nga maanu téewul ngay digleeka tere ndax ñàkk baanu muy ñàkk tege ciw yoon du tee nga teg ciw yoon ña nga war a teg ciw yoon kon ñàkk a jub rek du téye nga wax ne jub leen hmm. dafa fekk rek bëggoon nañ ba ngay wax jubleen fekk yow nga jub waaye nag sang ñàkk jub du tee nga jubbanti sang njaboot du tee nga jubbanti it képp ko war a jubbanti mhm. moo tax mu waxaay waan noonu daan ne waqii la wax nañ ne kat inn zeyni nekk ñaari yi ma mujj wax muy am ndigalul imaam ak maandu lam yakkoona nekkuñu charte ni di ñaari sart fil amri ci diglee ko tere daan kon na nga bàyyi attax mi ne wéye njort wajaa dikk na itam aydan ba tey chartu kawnil munkari chartum nekku li ñuy tere fi zahirin muy lu feeñ min duuni tëj siisin ci lu ak dure yi ko xameef na ko nee na sart nañ ci itam li ngay tere nit di ko def ba ba nga di ko tere na fekk muy lu fés loo xam ne ka koy def nëbb ko daf ko gaaral pénc mi di ko def ci mbedd mi moo tax ma ne wajaa dikk ay dem ba tey ñu wax ne chartu kaw na munkari chartu bu nekk li ñuy tere fi zahirin di lu feeñ di lu fës min duuni tëj si ci lul ak gëstu dër yi ko xameef na ko bañ a nekk loo xam ne da ngay gëstu ngir xam ko daa nekk lu fës loo xam ne nëbb ko subaa loola ca ngay songu nit ngir ne ko bàyyil nangam ak i nangam mhm. waaye nag nga njortu ko rek di ko gëstu ci moom di ko lëñbatu loolu yoon nanguwu ko moo tax ma wal ishtiraaqi sami du ceeginu sàcc ak dégg comme nga yunnitu nit di ko déglu ba yàgg nga ne aha dégg naa li nga wax lépp nangam nangam loolu ëpp naa def dañ koy tere wastin shaaqi raixatin ak batax ndiku ak xet mooy xeeñtu ak xet di fóon ay yéere mag naan ko fi mu ne yaa ngi nii alcool ngay xeeñ nangam nangam te dara leerul ci loolu ëpp naa def ka fi'li zin nifaaqi ndiki jëfu boroom ak naafiq Mhm. kon daal kay def ab safaan sax te di ko suturaal di ko nëbbu duñu ko lu xarñi di ko feeñal waaye nag saa ko gaaralee mbedd mi di mbir moo xam ne mën na ca yóbbaale ku ne subaa nag yoon lijjanti ko jëflanti moom waaye nag taxul ñu sant la nga di ko fontu di xool lu mu xeeñ baa nga sàcc di ko dégloo yu mel noonu moo tax ma ne walam yejus daganut baxsun gëstu anil lazi ci li nga xam ne ikkitata ma nëbb na fi thawbihi ci yéreem aw fi dukaanihi wala ci bitigam naam waaw moo tax nee na daganul benn yoon rek ngay gëstu nit ki ba di gëstu lim denc ci biir yéreem di làmb ay poosam wala nga dugg ci biir bitigam di ko salfaañe naa ko am nga looy jaay te dañ koy tere loolu nee na ëpp naa def moom it wala mu yëjus daganul baax suñ gëstu anil la si ca la nga xam ne ekkitata mën a na fii saw bii ci yéreem mooy lu mu def ci poosam sax yoonam mooy la dugal sa loxo ci poosam di ko xool aw fi dukkaan walla ci bitigam naam waaw aw fi yaddihi aw fi yaddihi wala sax ci ñaari loxoom aw fi yaddihi wala sax kon ci ay loxoom nga xam ne boo ngëboon dara sax yoon mayu la nga di ko ñeppar ñi ngir xool lan la ngëb aw bi daari yi wala ci këram lu mu denc ci biir këram yoon mayu la nga di ko loxar ñi maan boole seen bal li fi nekk kullu saa képp ci lii rek kaana nekk na xaraaman di lu araam mu ne loo xam ne teref na ko ne lu mu ci daal xamal ne jëf ju araam la joo xam ne yoon tere na ko mu ne wax la waalam xamal ne bi ann al amra ndaka digle wa nax ak tere jalaa feeñ na bay baynahuma ci seen diggante talaazumun ak taqoo te am malaa seetantal ko nee na boo seetlu nag dangay fekk ne diggante digle ak tere am nañ benn alaaq bu leen boole am na lu leen lënkale waalam xamal ne bi an al amra nag digle wan nax ak tere daal jalaa feeñ na bay na xumaa ci seen diggante talaazuman ak taqoo te amalaa settantal ko boo xoolee da nga diggante digle tere moom am na lu leen lënkale te mooy nag dangay gis ne man képp koo xam ne naxa tere na an ay shay'in bu mu ci mbiri rek xad jara loolu daw na te mooy rek loolu am na fa innahu wér ni ne moom kon xadd amara digle na bi aksi yi ci safaanub loolee mu tere ne boo seetlu da gis ne ku tere mbir rek digle na safaan ba maanaam ku naan la bàyyil lu baax rek mel na ne mi ngi naan la defal maanaam ku naan la bàyyil lu bon rek mi ngi naan la defal lu baax hmm. ba tey itam képp koo xam ne mi ngi naan la defal lu baax rek ba tey ma fomb mooy mi ngi naan la kon bàyyil lu bon kon moo ñu moo tax ñu gis ni képp ku lay digal lu baax rek ma lay tere lu bon képp ku lay tere lu bon ma ngi lay digal lu baax hmm. wa yaxarumu dana araam al kibru ak rëy alayhi ci ab jullit war riyaa ak ngistal wa kaziban ak fen namimatun ak rambaaj fal tadriya na nga xam nee na daal di rëylu ëpp naa def ci ab jullit ndax yàlla rek mooy mutakabbir riyaa ngistal bokk na ci li nga xam ne dafa araam lépp looy jëf yàlla rek war a tax waaye ngay jëf ba noppi doy lootoo ci gisul yàlla rek xanaa bëgg itam nit ñi gis ko loolu moom yàq jëf lay def ba kasibun ak fen wax lu dul dëgg ñu woyefal ko lool tëm rëy lool loolu bokk na ci li nga xam ne lu araam la lépp lu ab jullit di wax rek war na ko natt ba muy dëgg ci moom xam ne li muy wax dëgg la namimatun ak rambaaj rambaaj moom ci jëf yi ñaaw yu araam yi ci la bokk te mooy jaxase ay nit kon fal tadriye na nga xam mhm. yooyu mu tudd nag da leen bëgg jalaat benn par benn leeral leen lim njëkk a wax mooy ak rëy moo tax ma ne xaqiqatul kibri bi kasril kaafi wa bi sukunil bàyyi bi laa xilaafi mu ne xaqiqatul kibri dëgg dëgg rëy buñ koy wax bi kasril kaafi ci masque suuf gi nekk ci keef gi mooy ki wa bi sukkoonil bàyyi ak ci mask ak néeg gi nekk ci baagi bilaa xilaaf yi ci ludul woote baatub kibru ci boppam lay bañ ngi juum ci mask yi mu ne la baatub kibru keef gi dañ koo kasara mas ko ci suuf baagi dañ koo baas mask ak néeg bu ko defee muy teggi al kibru ak rëy mhm. mu ne dëgg-dëgg rëy mooy lan mu ne xol waxal ne rafaxu nafsin mooy yëkkatik jëmm maxakat mel xaq ànd ak nëbb ak dëgg ma xataa obdu min ànd ku màgg màgglu waxamtil xalqi ak xeeb mi ndéef yi nee na dëgg-dëgg rëy daal mooy koo xam ne dafa yëg boppam màggal boppam lool mooy rafam nafsi ba noppi nag ma xakkat xaq ànd ak di nëbb gépp dëgg koo xam ne day dal ci kawam ma xataa obdu min ànd ku màgg màgglu luñ ko yëkkati mu xeeb ko waxamtil xalqi ak di xeeb mi ndéef yi jekki xeeb moromi doomu aadamam loolu mooy rëy dëgg-dëgg lam ci tegoon mooy ngistal moo tax mu ne xaqiqatu riya la dal akiyaasi iqaaxu qurbatin li qasdi naasi te waxu la daa imaamun al ghazali iksaaru taatin ma al maali li kay yanaala fi qulubi al xawmi manzilatan ajibatan fi rawmi wax na dëgg nee na xaqiqatu riya dëgg-dëgg ngistal daal la dal akkiyaas yi fa way ñaw yi ñi nga xam ne ñu yewu lañ niñ jàngalee ngistal nee nañ iqaaxu qurbatin mooy tàbbal ak jaamu mooy def ak jaamu yàlla waroon caa jiblu ngir yàlla waaye nga def ko li xas dinaas ngir jiblu nit ñi maanaam def dara ngir nit ñi gis la te fekk nga waroon coo dayloo gisug suñ borom daane waxu loolu nag la daa imaamu naa fa suñu imaam ji al Ghazali te mooy imaamul Ghazali moom nam ko tekkee moom it mooy iksaaru taatin baril ay topp yàlla maal maali ànd ak jëm ci cër yu kawe te fekk ni dara taxut li koy yenaa la dulul rek li koy yenaa la ngir mu am fii xulubil xaw mi ci xoli nit ñi mën manzilatan wàccuwaay ajibatan bu yéeme fi raw mi ci càkkutéef imaamal xasaali nee na bokk na ci ngistal koo xam ne danga koy gis mu baril ay topp yàlla lool ànd ak jëm ci mbir yu kawe yi te fekk ngir yàlla rek taxul daf ko def rek ngir bëgg am wàcc wàccuwaay ci xoli nit ñi ngir nit ñi ñoom ci seen bopp ñu am fuñ ko teg mooy lekk koy yenaale ngir mu am fii xulubil xaw mi ci xoli nit ñi manzilatan manzilatan wàccuwaay ajibatan bu yéemi fi rawmi ci càkkutéef su ko defee loolu ba tey ci ngistal la bokk kon looy def rek yàlla moo war a tax lam ci tegoon mooy wax lu dul dëgg mu ne xaqiqatul kazi bi ixbaaru kama لم يكن ثابتا بقول العلماء وهو قبيع موجب إساجلا لعنة السجلال فيما نقلا يعني حقيقة الكذب دق دق فنك إخباركم موسى قبار ما لو خمني واخ رك لم يكن نكت ثابتا دي بقول العلماء تي واخي بروم خم خمي يعني فن دق دق دال موي nga wax lo xone buñ وهو من فن قبيع لبنلا muujibun aji waral la itam isaa jalaaneem feeñ na laanati sil jilaali rëbbum borom màgg gi muy suñ borom fii ma ca la nga xam ne nuqi la toxaleef na ko nee na kon fenn lu doy waar la tey dana waral merom suñ borom subhaanahu wa kon mat naa moytu ndax dana tax yàlla rëbb jaam bi lu tax mu ne is ngir laa yeminu du giñ laa yeminu du nar du nar boog mooy du fen laa yeminu du fen ak sax su jëmm ji illaa xarajat lu dul ne génn na kisbatuhu fenam woowu min fii bàyyi ko ci gémmiñam suma saada topp mu yéeg wuti fan asamaan ndax ne na fa tabloxu ba day jot al arsh aras allazi aras mi nga xam ne ala makaanin gën jaakawe ji béréb su ma tàqul topp mu wax lii moom fen ni anaaman kat kisbatu fulaanin maay fenn diw doomi diw diw nee nit du génn ci gémmiñam mukk aw fen lu dul ne fen wa yéeg na wuti asamaan te dana dem ba toll ak xarash mi nga xam ne moo gën a kawe ci béréb yi fen wi ci boppam daal di wax wàqanteeg suñ boroom moo tax ma ne is ngir laa yeminu du nar mooy du fen a sax su jëmm ji illaa xarajat lu dul ne génn na kis ba tuuxu fenam woowu min fii bàyyi ko ci gémmiñam su ma saxaada topp mu yéeg fa tabloxu ba tolloog al arsh aras alladi aras mi nga xam ne ala makani mooy gën jeekawe ji béréb su ma tàqul topp mu wax moom fen mene ana man kis bëtu fulaani mooy do maay fenu diw sàngam doomi diw sàngam boole ci nag wax ne laanahu yàlla na ko rëbb allahu yàlla fa yalaanu te koy rëbb almaliku buur bi subhanahu bàkk naa ko min sàmma ca foofee maa kulli malak ànd ak mépp malaayika neen fen wi day wax ne man day maay fenu diw sàngam moo ma fen doomi diw sàngam ak doomi diw sàngam daani yàlla nag yàlla na rëbb ki ma fen yàlla na rëbb ki nga xam ne moo ma fen man moo ma tudd man fen te nee na loolee mu ñaankat sun borom da koy def malaayika yëpp tam dañuy rëbb waaj moo tax ma ne fa yàlla anuti kuy rëbb almaliku bi subhaanahu bàkk naa ko ndax yàlla rek koy rëbb min sàmma ca foofee mu ne déedéet ndax maa kulli malakin day ànd ak mépp malaayika nee malaayika yépp danañu ko rëbb sun borom dana ko rëbb te duñ yem foofu ndax wata kutabu def na bind al amlaaku malaayika yi àddal ayin li mu ayin xatiatan ci ay ñaawteef xale yi ci moom doona may ni ci ludul nar ayin nag mooy juróom-ñaar fukk dañ ko bindal kon juróom-ñaari fukki ñaawteef ci wenn fenam boobu te nee na kat kullu xatiatin bépp ñaawteef rek ci ñaawteef yi juróom-ñaar fukk yooyu bi qadril jabali toll na toll na ne jabalul uxut bi qadril jabali toll na daj wa fii uxudin ci uxud xakaahu nettali na ko cheikhuna suñu sëriñ alwaali kilifa ga te nee yàlla dana ko rëbb malaayika yi danañu ko rëbb te danañu ko bindal ci wenn fen woowu juróom-ñaar fukki ñaawteef te juróom-ñaar fukki ñaawteef yeneen benn ñaawteef bu ci nekk rek dana toll ne jabalul uxud ci rëyaay kon loolu lu mat a moytu la kullu xatiatin rek bi qadril jabali ñaawteef bu ci ne dana toll na doj wa fii oxodin ci oxod te mooy jabalul oxod boobu xakaahu nettali na ko cheikhuna suñu sëriñ alwaali kilifa ga hmm. kon xam naa incha allah buñ ci dellusiwaatee rek danañ ko gën a topp ak yéen